bés bu àddina wërngal këpp di jagle set setal ñu gën koo xam ci World Cleaning Day ba tax commune bu Hann bel tàmbali moom itam bés bu njëkkam ngir set setal seen gox ci njàppandalu ville de Dakar waa UCG ak benn mouvement associatif bu nekk ci Hann ci noonu nag mairie bu Hann Bel-Air ndollu na ci ngir yëgal askan wi ci déchets solides yi nga xamante ne kenn boolewu ko woon ci projet de dépollution bu baie de Hann bu ñu doon amal démb li ko nak an pêcheur de jappelé bu gi askan wi ñoom ñëpp genn ngir japp ci boobule journée. ku ci melni Babacar Mbengue di maire bu an bel l'honorable député ndey Fatou Diouf monsieur la Gagny saxo di DG bu ONAS ak yenn ci représentant AFD ak bu Union européenne danaka ñom ñëpp téwé won nañu ko. kii di premier adjoint au maire di monsieur Matar Diaw di dikkaat ci historique bu dépollution bu baie de

merci beaucoup mon aussi parce que mon recommence, 2009 moi, ñu jëkk que wax ni projet de 33 milliards mais aussi ñuy dem projet bi comme ni ñu koy waxee bu si vous avez di Touba aussi itam a de 33 milliards aujourd'hui aussi de tout avec 60 ñu retrouvons avec milliards pour fukki milliards mais 2 milliards fukki milliards yi li ñu que a wax mooy dañuy def traitement secondaire traitement secondaire nous dañu bëgg traitement tertiaire mais là, nous ñuy commencé

dañ daan wax ni pollution wu BDAN dafa am deux sortes de pollution mooy pollution bi nga xam te dafay jógee ci kër yi am pollution bi nga xam te dafay jógee ci industrie yi mais industrie yi dégg ngeen démb avec Amadou Seck ñu koy remercier au passage bi nga xam te moo porté woon voix ci démb aussi itam mu jël ay engagement très fort ñooñu aussi itam ku nekk 60 mètres de part et d'autre da ngay branché ñu def système du pollueur payeur mais ñun lan la ñu bëgg ñun en tant que population en tant que mairie de am bel

taxawal benn structure ngir déchets solides am na ko ginnaaw loolu nag di delloo njukkal li ci association yi ku ci mel ni CRAB ak ku mel ni Mbacke Seck Mansour Tambédou Max Diop ngir liggéey bu mucc ay bi nga xamante ne ñu ngi koy amal boobu ba tey. man li ma gën a neex tey ci journée tey bi ñu organisé mooy dañuy continuer loolu di remercier madame la maire de Dakar di remercier entre gens ba monsieur le maire Babacar Mbengue bi amee gis bi nga xam ne ci suñu rakk la Abdourahmane Camara jox ko ko ci espoir ak ci yaakaar mais aussi itam di réitérer ñun waa mairie Hann Bel-Air dañuy surtout continuer di soutenir CRAP daañu ko jàppale ci wàllu lu jëm ci dépollution de la BDAN mais aussi itam yeneen association yi képp ki nga xam ne ci def nga parce que bërki démb suñu xarit Mbacke Seck invité ñu invité maire bi ñuy wax écotalante moom aussi tam ma koy rendre un hommage mérité parce que nag ku ne BDAN sa xel dem ci Mbacke dara

projet gestion des eaux seen bés bu njëkk ñeel wàllum World Cleaning Day tax na askan wi alerté seeni i njiit ci njëriñ li nga xamante ne muccel lii di bedde Hann am na ko ba noppi accompagner leen ci projet de dépollution ngir lii di bedde Hann ñëwaat ci xar bi ko ñëpp ràññee woon.